Pape Doumbouya am na ay supérieurs Karim Wade a ngi nii Karim Wade Sénégal Sénégal président bi moo leen njëkk a wan Karim Wade Karim Wade a ngi nii là c'est président Karim président Karim Prestige TV waxoon naa leen lu amul fenn yéen a koy am yéen waa Prestige Karim Wade a ngi nii Karim Wade a ngi nii Karim Wade a ngi nii yoo après 6 TV amul yéen a njëkk a wan a Karim mi ñu doon wër. Karim Wade en direct Abdou Mouya am na expliqué Karim Wade ngi nii Sénégal Sénégal Prestige TV moo leen njëkk a wan Karim Wade Karim Wade ngi nii merci président Karim merci président Karim Prestige TV waxoon naa leen lu amul fenn yéen koy am yéen waa Prestige Karim Wade ngi nii Karim Wade ngi nii nii yoo oh. Wade a ngi nii waa Prestige TV amul yéen a njëkk a wane Karim mi ñu doon wër